الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدو بي كوشي تي بي جسان فيدو الحمد لله رب العالمين من شي جانغر رقم وي سنتنا يالا بايا الله مولانا شيخ إبراهيم شيخ محمد الماحي نيو فيك سنيو دكار زيارة سنيو نيو كو يالا كادو يم نيو رفل نيو جري نيوكو waye limay wax rek toujours ñun nañu am fulla te am fayda loolu laay wax toujours nañu fexe li nga xam ne amoon na Dakar bu mu amati ndax du ma dugg fii di wax ziyaara politiciens yi nga xam ne tekkiwuñ dara nekk fii ci Kaolack gi bëgg sonal jël suñ sëriñ yi bëgg koo fooyee jël xale yi di leen xoy ci xaalis ñu leen koy jox loolu moo war a jeex sëriñ sëriñ la dafay toog ñëw ndey ji cheikh la fum ñëw ñu oo ko ziyaare ko mu uuf ñëpp leneen li nag ñun ndaw yi ñun ñoo ko moom te ñun tey Cheikh Mahi mooy suñu Cheikh Ibrahima Niass suñu ñu dee leen ñu dee suñu ñu dund leen ñu dund suñu ñu dox leen ñu dox waaye dootuñ nangooti benn ndaw boo xam ne ci Médina di taxaw di jéem a fooyee suñ kilifa yi loolu ñun dootuñ ko nangu te maa ngi koy avertir képp koo xam ne taalibe la te bàyyi nga ma xel maa ngi la koy wax buñ nangooti loolu parce que politiciens yi jaruñ dara jaruñ dara jaruñ dara léegi nag xaalis boobu ñuy ñëw di ko indi di ko xoy suñu bopp ñun di ko jëndee ay xale yoo xam ne ñuy dem di wax ak kilifa yi te kilifa yi comprendre ñu dara loolu mooy jeex ci Médina Baye Médina lañ leen xamee sharia lañ leen xamee daara jàngale loolu lañ xamee Cheikh Ibrahim ku ñu déggoon da nga naan est-ce que naw ñu ñun waa kër Cheikh Ibrahim waaye nañ def attention fexe leen ba taaliba bàyyi buñ leen wax mukk ñu jóg di dem di xeexi ñuy xeexi parce que piège la suñ sëriñ mënuñoo ñëw digal ñu digal ju rafet jooju nañu bu leen bàyyee xale yi ñuy dem di rayante bu leen bàyyee xale yi ñuy dem di nangam ñu tourné waat ñun taalibe bàyyi ne ñun dañuy reyante ndax dañoo tudd suñ sëriñ te ñee dañoo tudd seen leader bàyyi leen xel bu baax il faut nit di réfléchir avant muy def dara te nit ñi foofu lañ toll parce que waxu Macky Sall ja mooy ñëw fa mu waxee ne ñun ay citoyen simple lañ ñun sëriñ si ma ne ko déedéet duñ citoyen simple parce que moom du citoyen simple président la beneen directeur bi du citoyen simple parce que directeur la ndax da am ñoo jiite kon nekkatoo simple kon nag sëriñ bi nga xam ne dafa jiite ay mbooloo kooku nekkatut simple yaa ngi dégg kon nag la bëgg mooy jël ñoo xam ne jege nañ ñu ci dëkk bi lañ dëkk jox leen ay xaalis fexe leen na corrompe ñooñu corrompe sëriñ yooyu ci xaalis bi bañ dem ba barde ci xaalis boobu su ko defee ñu bëgg ñoo yàq ñun dofuñu ñu ngi fi te duñ ñuy bàyyi suñ xel bu baax loolu nag dafay dakk ci kaw Kaolack te pare naa xeex ko lu ma ci góobe naa ko jëgër lu ma ci góobe lu ma ci fekk waaye Cheikh Ibrahima ñas kenn du ko fooye Cheikh Ibrahima Niass du moroom dafa raw ci àddina nekk boroom xam-xam moom rek ngay gis nga tukki ci àddina foo mënti dem soo demee ci réew moomu dinga fekk junney junney doomu réew moomu nekk taalibe Cheikh Ibrahima Niass waaye beneen kër diina boo dem da ngay fekk ñun sénégalais yu fa jógee dem Europe ñun ñoo dajaloo taxawal suñu daayira doom ki ngay fekk taalibe foofu doomu réew moo mu nekk ay junne junne taalibe Cheikh Ibrahima Niass lay doon kon bàyyi lam indi woon tasaare lislaam tasaare tariqa tijaan jël li nga xam ne mooy damm-damm yi ci lislaam mu jeng ko ba mu jubaat bàyyi loolu moo nekkoon mission yaa ngi dégg kon nag war nañ koo defal ñëpp kon nu ma koy waxee di ko waxee ci taalibe bàyyi borom xam-xam yi ci nekk ñëpp laay tudd muqaddam yi kon Cheikh Habib Ndiaye nu mu koy waxee ah kon Cheikh Sang nu mu koy waxee kon Cheikh Abdou Ndaw nu mu koy waxee ñun ñëpp dañoo war a jàppoo booloo ñu xam ne bàyyi xam-xam la ñu digoon xam-xam boobu nag am na ñu koy doxal nañ leen encouragé ñu teg mbiru bàyyi fa mu nekkoon ak nit ñu nawee woon ci Cheikh Ibrahim nañ fexe teg ko ci buntu boobu buñ wàcc yoon bi mukk parce que Baye musta wàcce woon mari na ci njub lañ ko xamee woon ci zikar tudd yàlla ndax koo romboon nga ne ko taaliba Baye la dafay kontaan day sawar day yàkkamte la xam waaye Médina fu mu nekk nii dem nañ ba nga xam ne asaaloo gi moo fi fees kenn respecté tut a mag kenn déggalu tut a mag kenn faalee tut keneen parce que ku nekk bopp sa bopp loolu demee wutoon noonu bàyyi ba muy ñëw fii ñu sant Bitey dañoo ñëw ñu sant Caam dañoo ñëw ñu sant Jang dañoo ñëw ñu sant leneen ak leneen ak dañoo ñëw te ñëpp dañoo nekkoon ci ñëw ànd ak Baye sancale ko dëkkam waaye dañoo toppoon ci benn waaw ak ci benn dëgg goo xam ne loo leen wax ñu ne waaw samaana waataana looloo amoon lii nag ci jamonoy alaaji Abdoulaye benn kàddu googu moo amoon léegi nag lan moo xew lan moo xew Médina lan moo xew Médina ba ñun ndaw yi nangatuñoo déggal mag nangootuñu teg te soo waxee ñu ne la da nga waane dëgg dafa neexul kenn koo ko wax mu mer koo ko wax mu mer man mii ku ma waxoon dëgg am na dëgg yoo xam ne dafa may touché waaye dama koy nangu xam ne lañ ma wax dëgg la ndax suñ la waxee dëgg nga nangu rek dinga nga mën a tegu ci yoon bi te suñ bëggee nekk ay taalibe baay dañoo war a tegu ci yoon bi kon ñun famille bi ñun famille bi nga xam ne doomu Cheikh Ibrahima Niass yi ñoo war a njëkk a tegu tegu ci kaw raay bi su ko defee suñu doom yi tegu ci raay bi taalibe yi mun a tegu ci raay bi waaye su fekkee ne ñun doom yi teguwuñ ci bi xale yi duñ mën a tegu ci bi te tegu ci raay bi mooy lan déggoo waxtaan nekk benn taxawal fi lu fi bàyyi taxawaloon gannaaw Baye si ba léegi mu fi taxawal ci jumaam ji ci leneen amul leneen lu ci changé leneen taxawul ci Médina na kenn taxaw ne ma gannaaw baay am na lu ñu fi def amut kon nag nañ góor góorlu nañ góor góorlu ba taxaw ci taxawu baay ak dénkaane mi looloo am solo diw nag saaga na diw wala diw di ñu nekk ca bitim réew di ñu saaga maa ngi wax ne taalibe Baye ya nekk foofu ñun États-Unis lañ dëkk yaa ngi dégg xam nañ ku toog suñ xalifa mooy kenn du laal suñ xalifa mooy suñ Cheikh Ibrahim moom lañ bëgg àddina ak moom la ñuy xoolee bàññis ku ñu saaga nag te nekk ci biti làqatu xam nañ nuñ koy doxalee ña nekk Amérique nga xam ni imam Mouhamed Ndiaye mu ngi fa Cheikh Ibrahim Hadj Ahmedou mu ngi fa kooku nekk foofu wala fu mu mënti nekk suñ jëlee avocat dox ci yoon wan suñu pas-pas lañ jël di saaga di leen wax lu leen neex parce que dañoo làqatu Amérique Amérique dafa am loi loi boobu suñ ko ci toppee ba xool ko xam ne kii day tooñ pour làqatu ñoom danañ ci def seen yoon kon nag ña fa nekk nañ ko def leneen li nag ki nga xam ne mooy kii saar wala nangam ñu ngi toppante ak moom ci yoon ñu ngi xaar pour déglu parce que ñun ay taalibe baay lañ te baay moo ñu yar ci non violence baay daf ñoo yar ci loo xam ne du fitna xam nga baay ci lum ñu yar yërmande jàngale ak xam-xam ci loolu lañu ñu yar ñun ay taalibe baay waruñoo jóg tey ñu ne ay taalibe baay ñoo jóg di xeex di reyante jotagul jotagul ñu koy def parce que am na loo xam ne mun na taal fin na te soxlawu ko yoon am na te président de la république mu ngi fii te xam ne Cheikh Ibrahima Niass nu mel ci international bàyyee nañ ko yëf yi danañ dugal suñ plainte wax ko léegi nag plainte boobu ñu dugal noonu di xaar su ci deful ñun international la amul lu ñuy tiit ñun taalibe bàyyi international la danañ wax suñ taaliba yëpp fépp fu ambassade Sénégal taxaw ñu dem manifester wu wane ne dañoo laal suñ pas-pas te Sénégal gi joxuñ ñu cër kon nag boobaa ñëpp danañ dem manifester wu wane Cheikh Ibrahim ñu wane leen nag nan la mel ci àddina bi parce que waaye nag duñ tëb ci violence nañ dal ànd ak te ànd ak ñun ay noobul lañ ñun taalibe Baay Ñas ay noobul lañ bu ñu kenn di xool bu ñu kenn di xool di yaakaar na ni ñun ay noobul lañ noobul nag du xeex ndax naar mauritanien yi dañuy wax ne ay ditin xabb maay xabar loxo bu ñuy foon du dóore te ñun bàyyi moo ñu njaboote amul taalibe bi amul doom bi amul kii ñun ñëpp ñoo yem ci bàyyi kon nag waruñoo dóore ñun dañoo war a am yërmande di jàpp nit ñi di leen xëcc di leen tette loolu mooy yoonu Cheikh Ibrahim Niass waaye maa ngi wax ne taalibe bàyyi dañ gën a booloo ñu gën a nekk benn xàccandoo dóorandoo tasaaroo gi rek moo waral lii te loolu fajaluñu dara nekk taalibe bëgg Cheikh Ibrahim dëkk ak Cheikh Ibrahim loolu rek moo ñuy jëmale kanam ñu ngi lay gërëm bu baax Kossy TV kon nu ma koy waxee saa su nekk mooy suñu tele mooy tele askan ndax Kossy foofu la euh, mbënd gi commencé di jolli ba nit ñëpp mun cee am kon nag Kossy su ñëwee tamit di wane lépp tamit nañ jàppale télé bi te tele bi ci kanam rek lay jëm ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim salaamaaleykum wa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 yàlla yàlla jot leen